asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokki Sénégal mbokki Afrique mbokki àdduna wërngal këpp maa ngi amaat mbégte di jàkkarloo ak yéen ci seen kàddu bés bi comme ni ñu ko waxee woon donc ci première édition bi kaddu bés bi du lenn lu dul ay baat ay kàllaama yi nga xam ni dañ koy faral di dégg lu bari ci média yi ak ci askan wi te mu laaj ay gëstu ay xalaat yu xóot yu ci nit ñi war a andi pour mën a am ëllëg bi nga xam ni li leen ump gaa du ñàkk waaye yenn kàddu yi dinañ ci mën a am lu leen leer kaddu bëss bi tay nak dañ ko jagleel ci li nga xamni en tout cas en 2012 nek na lo xamni ñepp ñëpp nañ ci seen bëtt ñepp dégg nañ ko ñu ci bari bokk nañ ci ñu ci bari ñu ci doon wuyo wala di ci wote tay kaddu bëss bi dama ko tànn ak and ci équipe bu république ne kat kàddu bi tay mën nañ ci tuddu luñu ñu Yanamar, Yanamar, mu nek kaddu bi nga xamni tay en tout cas senegal gi ñu nek senegal gi ñu gëm senegal gi ñi nga xamni ñun mom rek la ñuy liggéeyal rek mo ñu jaral lu ne mu nek lo xamni tay a ah won na aduna lembe won na senegal lembe won na xelu nit ñi tay kaddu bëss bi daf ci bëgg waxtaan yaanamar bu ñu ko bëggee tekki ci francais mooy ci sama xalaat bu gàtt mooy maanaam dañ cee doyal mu nekk loo xam ni tey ay ndaw ñi nekk ay rappeur coordonnateur ba nekk journaliste muy Fadel Barro ak ñu bari bokkoon ci doon jóg di ñaxtu wàllum courant doon jóg di ñaxtu wàllum dund bu cher doon jóg di ñaxtu wàllum chômage doon jóg di ñaxtu éducation bi doon jóg di ñaxtu maanaam lépp lu nga xam ne sénégalais yi ñu ngi ko doon dund lu metti dañu yaakaaroon ni kat état moo leen ko teg njiit ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñoo leen ko teg te Y'en moomu de laa ne tey naa ci ànd ak équipe équipe république point com ñu nañ ci waxtaan ak askan bi Y'en tey jamono ji ñu toll bokk nañ ci mi ñuy wooye le mouvement M23 mi mouvement bi nga xam ni le 23 juin bi nga xam ni tey yaakaar naa ni kenn dootu ko fàtte muy le juin en tout cas 2011 kenn dootu ko fàtte mu nekk lu bari lu xewoon biir Sénégal ci ay xiiroo ay ŋaa ay ŋaayoo ci li nga xam ni kat dañ ko wooye le ticket présidentiel bi ñu proposoon donc loi pour que waa euh, ñi député yi nga xam ne ñoo teewal askan wi fi fële ci assemblée nationale bëggoon euh, votelu peuple bi jóg Y'en a bokk ci M20 euh, moom bokk ci askan wi bokk ci le forum civil bokk ci ñun sénégalais yi ñu jógoon ne déet ñii peut-être ci rajo yi la ñu yemoon ñii ci télé yi la ñu ñi ci mel ni Y'en a marre jógoon kat demoon assemblée nationale ñoom jàmbaarloo force de l'ordre yi jàmbaarloo fas yéene woon jàmbarook député yi pour loolu bañ a am ba tey loolu amul ba nguur gi fi nekkoon daa di retirer boobu noonu mu nekk ñun lu ñuy rafetlu lu lool ay ndaw ay sénégalais ay doomu askan bi jóg daa di taxaw xam ni kat lii ñu bëgg a taxawal te waa askanu ndaw réew mi muy assemblée nationale bu ko voté ñun ñi ñoo leen faloon comme ñoom ñu seen responsable ñun duñ ci taxaw ne lii du fi amee loolu ñun dañ koy rafet rafetlu ba fu lu yem waaye nag Y'en a marre ak Y'en ñii ñu dégg dafa mel ni dafa wute dafa mel ni dafa wute tey dama leen di laaj ndax courant bi ma ngi am di doy maa ngi xaar seen tontu dama leen di laaj ndax tey facture courant bi ma ngi wàññee comme déet seen tontu laa ciy laaj dama leen di laaj encore ndax éducation bi mu ngi jaar yoon semaine bii ñu jóge nii semaine bi ñu nekk euh, gis ngeen grève bi commencé war na taxar naa ci biir école yi ma leen di laaj dama leen laaj ndax jeunes yi doon chômer ndax ñu ngi liggéey ndax am nañu xëy dama leen di laaj ak leneen li nga xam ne yéen ko gën a xam ci kaw loolu la naan ana maar ana yaana ana yaana maar tey jamono ji dañoo toll ci yaana envie wala tey dama leen laaj ndax yaana maar dafa ànd ak le pouvoir bi nga xam ne ñoom ñoo ko jàppaloon maanaam Macky Sall ak son programme yoonu yokkute yaana maar massivement dañ cee woote au deuxième deuxième tour pour que sénégalais yi daal di jàppale Macky Sall donc mun nañoo jàpp ni yaana bokk nañ ci ñi fal makisal damay laaj ndax yaana maar boobu dañoo ànd ak Macky Sall liggéey nekk ci mouvance présidentielle wala naa maar dañoo toog di ndégg wala fu ñu nekk en tout cas ñu leen di dégg fu nekk ña ngay tukki ña ngay génnee album ña ngay dem fu nekk di fa installer ay ay esprit yaana maar comme nuñ koy woowee ba bu ci mujjee esprit yaana maar bu Paris dégg naa installé nañ ko te sama benn xarit sama benn doomu ndey mom moko coordonné muy nigamas xamna mom dana ci andi ay leral yu yu gëna yu gëna yu gëna yu gëna dal yu gëna fess ci loolu donc kon yana mat ñu ngi dem aduna wërngal kep dafa def lañ fay def lañuy gis di génne album bu fekkee wàllum rap la geneen ak yéen dégg ngeen ko muy simon muy euh, kër gi muy euh, batayo balande ñoom rek nga fiy dégg ñuy génne album di dem fu nekk mais yaana maar ba ñu xamoon yaana maar bi nga xam ne tey ñoom ñooñu ñooñu nandal ba ñu maree ci ci jóg jël sa destin amee ci jóg taxaw ne kat lii du fi amee jóg mel ni Lat Joor ba ko defee woon mel ni Alburi mel ni ñeneen ak ñeneen jóg mel ni Cheikh Ahmadou Bamba xeex ak euh, noon bi xeex ak nasaraan bi yanamar moom dafa mel ni man loolu laa gisoon ci ñoom mais jamono yi ñu toll loolu kan mbokk yéen a ma gën a xam déggatuma leen ma bëggoon xam nag kon émission bi comme ni ma leen waxee rek day pousser la réflexion day susciter un débat par rapport lii xew nga xam ne yéen yéen a koy dund yéen ñi nekk Sénégal yi nga xam ne yéen ñi nekk extérieur yéen a koy gis ci média yi émission bu ni mel day day day day day day junj rek pour nit ñi mais j'ai le jugement pour nit ñi xalaat ci lool apporter ci ay réponses donc kàddu bés bi tey a guise de rappel Y'en a la doon laaj ci mu nekk Y'en a marre ci lan la ñu nekk kàddu bés bi loolu la doon laaj yéen ñi ci bokk maa ngi leen di ñaan ngeen andi seeni réponse par rapport au questions yi nga xam ne man dama koo jot en tant animateur de l'émission ma ne tey naa ko baaxee askan bi ak si ni ma yaakaar ni noonu laa ko mu ne muy waxtaan la rek euh, émission boo xam ne dama ko fas yéene di ko def ak waa république point com chaque samedi incha allah chaque samedi incha allah da ngeen am benn vidéo bu bees bu ni mel boo xam ni nii rek lay demee seen oustaz Mouhamadul Al Amin Badji moo koy def andi ci équipe république point com donc mu nekk comme ni ma ko waxee loo xam ne ay xalaat la ay ay ay ay ay junj la ci ay kàllaama ñi faral di déglu te tey ñu tànnoon ci yaana maar kon question baa ngi noonu yaana maar fan la nekk yaana maar ndax dañoo ànd ak Macky Sall di liggéey wala yaana maar dafa am lu muy ndege ni ko wala yaana maar lam ñu waxoon ba ñu maaree ba ñu maree ba ba mu nandal ñu lam ñu waxoon ndax maa nga ca ba léegi loolu rek la émission bi tey muy kaddu bés bi doon laaj donc mbokk yi du ma def lu dul di leen gërëm ci seen temps ci seen attention bi ngeen porté au au portail rupublique.com muy portail bi nga xam ni comme ni ma koy waxee rek c'est le portail par excellence donc des sénégalais nous voulons donner l'information autrement nous voulons traiter l'information autrement et bi ngeen mën a andi seen i contribution yéen seen bopp bi ngeen mën di baaxee sénégalais et information yoo xam ne tey man su ma ci jotee wala équipe ruepublique point com dinañ ko incha allah publier ak beaucoup plus de fidélité maanaam ruepublique point com nekk na comme son nom l'indique c'est la ruepublique point com maanaam mbedd mi point com ñun suñu site loolu la loolu lay traité képp ko am benn contribution wala xalaat wala réflexion wala lépp loo xam ne mën na gën a rafetal sunu liggéey ci wàllum traitement de l'information à travers le portail rutpul.com maa ngi leen di ñaan man ngeen envoyé ma seen contribution ak seen réponse seen i xalaat seen question ci suma email muy badjinabi arobase gmail point com badjinabi ça s'écrit b a d j i nabi n a b i gmail point com bu ma ko jotee dinaa ko transmettre l'équipe euh, de république point com ñu daal di traiter information aussi mun ngeen def seeni commentaire ci article bi ci suuf su ngeen ko publier chaleur allah dana affiché aussi ci seen euh, Facebook bu leen neexee ñun commentaire aussi bu ñu ko gisee ngeen bàyyi ci seen email daañ ko mën a aussi traité waxtaan ceeg yéen xool nu ñu gën a mën a améliorer donc l'environnement l'espace et tout médiatique ñun bi nga xam ne ñun moom la ñu jóg duñu ay journaliste nag duñu ay animateurs yu ñu ñuy miin waaye ñu ngi ciy béy suñu weewu tànk te bu soobee yàlla yaakaar nañu ak seen collaboration ak seen i suggestion ak seen i contribution bu soobee yàlla dana gën a améliorer wu dana gën a yoru ay sénégalais rek affaire ils veulent traiter l'information autrement sénégalais l'information l' soxla wala sénégalais yi produire l'information. que ñu bañ seulement les journalistes que sénégalais seen bopp képp ko am information mën woo envoyer ci email bi ñu leen muy gmail point wa rahmatullahi taala wa un bon week-end et à très bientôt et pour toujours sur votre portail par excellence ruepublic.com. Wassalam.